gis nga bii bërki démb rek waaw moo si kii sept mille sept cent soixante-dix-sept gis nga ko mhm. kii rek mën naa ci duy cartable bu mu fees xaalis cartable bu mu fees xaalis mën naa ko ci duy sëñ bi mais turu rawaan bi la muy àndal moo bari kayit bii ma ne la sëriñ yu bari ñëw nañ fi pour bëgg secret bii secret bii mënuma leen ko jox bii mu ngi nii moo tax ma boole kook suuratul yaasin salaamualeykum waa Sénégal salaamualeykum waa àdduna di dellu di leen nuyu encore une fois di leen ziaraat bu baax a baax di leen waxaat ni numéro bii ngeen di gis mu affiché moom mooy sunu service client alors képp koo xamte ni am nga loo bëgg a jàllale ci YouTube bi incha allah boo ñu contacter dinañ ci liggéey ak yow di dellu di remercier ñëpp ñi nga xamte ni ñu ngi suivre suñuy analyse di partager seen point de vue ak ñun. donc tey waa Lu Xew TV ñoo ñëwaat encore une fois di leen defalaat beneen vidéo ci seen série maîtresse d'un homme marié. tey bi ñu seetaanee épisode 16 ba pare dafa am ay quelques yu ñu ci noté. ñi ngi commencé ci dund bi nga xam ne moom la rakki di dund. franchement mu doon loo xamante ni sii lu metti la. yow mi nga xamante ne da ngay seetaan film bi sax da am lu la naqari donte xam nga ni film la. mais dina am benn xolu yërmande bi daw ci yow. parce que am na sa beneen mbokk bu nekk ci côté bi boo xam ni mu ngi dund lu mel noonu te genre nit yu mel noonu dañ soxla ñu leen jige ñu leen di mën di jàppale di leen si delloosiwaat lu ko mooy rek dinañ sànq te ñu leen di jox benn conseil tamit dans la vie soo amee dara lu la naqari xoolal kenn ki nga xam te ne am nga ci moom confiance nga yaakaar ci moom nga mën ci waxtaan ak moom parce que nit bu amee lu la metti bis boo ko partagé ni mu diise woon dina gën a wàññeeku. mais soo ko bëggee gàdd yow dong day métti ci yow donc là c'est conseil boo xam dañ koy jox ñëpp ñi nga xam te ni ñuy bàyyi xel képp ku am lu la naqari xoolal ki nga xam te ni moom moo sa confident wala sa confidente nga mën a partager ak moom loolu pour yan bu diis bi nga yanu woon mu mën a oyof ci yow naam sax dina am ñu ni jamono ji ñu toll xarit amatul parce que man nga wóolu nit def ko sa xarit am sa problème wax ko ko mu génn siwal la ba ëllëg yow nga dégg loo xam ne day gën a yokk sa problème donc moo tax instant yi kenn wóolootul kenn kenn ku ne da ngay préférer garder sa problème sa bopp mais ñi nga xamante ni ñuy baax ñi ngi baax ba léegi donc personnellement man li may conseil ñi nga xamante ni ñooy dund lu metti ñu xool koo xamante ne am nañ ci moom yaakaar te wóolu nañ ko ñu dénk ko seen problème ñu waxtaan ak moom ci seen problème bu ko defee yan bi dina gën a oyof ci ñoom. parce que bu ñu jëlee exemple ci raté xool leen bi ko Moustapha commencé jige ci la commencé firi tuuti. dem na ba commencé partager ak moom problème am donc da gis ni day gën di soulager wu di man di ànd ak moom di génn di kaf di ree di fo et te loolu dafa bokk ci doomu adama te franchement ñi nga xam te ne ñuy dund lool ñu jar a jàppale lañ di ñaan yàlla na leen yàlla teggil coono boobu ñuy dund ba dugal leen ci mbégte. beneen point bi mooy côté boobu moom ci côté ñun góor ñi laay waxal parce dañ seetlu Cheikh. ñu gis bi téléphone di sone mayam di ko woo ñu gis bi téléphone di sonné mu bind ci Modou mécanicien ndeke boobu Marème moo koy woo <laughs> ñun góor dañu bëri feem te dañ lëndëm mais nag kenn ku ne li ngay def war nga xalaat fu ñu borom bala nga koy def parce que Cheikh d'habitude mi ngi def loo xam te ni ku ne xam ne ni baaxul muy maanaam di wax loo xam ne ni dëppoowul ak dëgg pour ne pas dire que il bëgguma jaar ci baat bi ngeen baal ma ci kàddu bi donc Cheikh souvent dañuy remarqué que nii day wax euh, loo xam te ni dëppawul ak dëgg te ku ne xam na ni wax lu dëppawul ak dëgg bàkkaar la kon ñun góor am na yenn yoo xam ne buñ koy def buñ jiitalee suñu borom rek dinañ ko bàyyi ndax am soxna am coro ca wet ga war di génn di ko seeti lay wu ne diñ ko lay te lépp loo xam te ni dëppawul ak dëgg yaa ngi ciy am bàkkaar tey gis nañ ni Cheikh comme d'habitude xoolate na ay pexe ba génn mais suñu borom daf ko natt mu dem fekk fa benn situation ba xeex ci ba ñu xotti yéreem imagineel tey yow responsable bu toll ni Cheikh muy dem seeti koo xamante ni si coroom la ba loolu lépp xew ca tey buñ ko fa reyoon ana lan lay wax bu demee ci kanamu borom bi njabootam gi mu fi bàyyi après ñoom nan la ñuy dunde donc nit lépp looy def war nga ci sóoraale yu bëree bëree bëri mais su fekkee da ngay def topp sa bakkan rek lu bëri doo ko sóoraale tànk dara dallu la doo xam ne mën mii li ma doon def ndekete lii la ma mënoon a jural te rëcc day fekk jëf wees kon ñi nga xam te ne ñooy def lu mel noonu war nañ ci jàng bu baax ci li ñuy dawal ci série bi war a xam ni que tey jii loolu ñuy def lu ne mën na leen ci fekk kon ñu teel ko bàyyi balaa leen di gàcce di fekk je pense que côté boobu noonu série bi mi ngi fay lancer message bu am solo kon ñi koy def ñu ngi leen di ñaan ñu revenir à la raison bàyyi xel ci loolu. parce que àdduna dafa doy waar àdduna dafa gudd tànk te li ñaan dund gu sotteeku lu ne xaj na ci man ngay def dara doo ci am benn jafe-jafe nga yaakaar ni du mës a ñëw xëy xëy sunu borom teg la benn natt boo xam te ni ci biir li ngay def ngay door a regret naa man kat su ma sañoon duma ma dugg ci lii fekk li nga doon def wees na ba pare. kon loolu lu jar a sóoraale la parce que dañuy faral di wax ni ëllëg du añ du reer mais lu mat a sedd la wax boobu nag képp ku am dégg-dégg. boo ci bàyyee xel lu bëri doo ko def parce que ëllëg day ñëw bu ñu jógee ci point boobu ñu dem ci beneen troisième point concernant Jalika ak Biram donc Jalika et son mari ñu gis ni pour l'instant Jalika day demander divorce et tey li nga xam ni si moo waral divorce boobu muy demander mooy que la dernière fois ci épisode 15 bi dafa vérifié woon téléphone jëkkëram mu gis ci ay messages yoo xam te moo ne naqari ba mu bëgg a divorcer donc peut-être que am na yeneen raison yu ci yokk mooy le fait que li biram doon dund avant mu naqari woon ko mais comme biram revenir na à la raison ba bàyyi lim doon def ba commencé nekkaat nit normal donc je pense que point boobu noonu Jalika baloon na ko ci mais lim gisaat ci téléphone am moo tax instant bi mu dem ba mer ba demande divorce mais foofu nag message bi ñu ci bëgg a lancer mooy tey jigéen wala muy góor téléphone à mon bi c'est personnel. tey nga am sa boroom kër pour man ci yoon bu tegee téléphone am même bii sonné waroo ko décrocher tant que joxul autorisation pour nga décrocher téléphone bi waroo ko décrocher parce que souvent dañuy wax ni qui cherche trouve tey Jalika bu duggul woon ci message yu biram du fa gis message yooyu ba tax mu koy pousser mu bay muy di divorce donc message bi ñuy lancer foofu noonu mooy kenn ku ne war nga mën a moytu di vérifier portable ki nga nekkal. parce que mën nga dugg ci téléphone am gis fa loo xam ni neexul la même bu dul cadre ki nga nekkal day doxaan wala day farantu fee mën nga dugg ci téléphone am gis fa leneen loo xam ni si neexul la parce que téléphone c'est personnel benn xaritam mën na ko envoyé benn message boo xam te ni ci ñoom ñaar la bëggoon ñu yem fa yow boo duggee mën nga ko gis te peut-être que lañ fay wax du la neex alors loolu lu jar a bàyyi xel la te xam ni muy message di appel yooyu noonu c'est personnel peut mais kenn ku ne tey bu jëlee li nga xam te ne c'est personnel mu bàyyi ko ak boroom je pense que problème mën na wàññeeku bëri na fi sëy yoo xam te ne téléphone moo ko tas donc jël sa téléphone boroom kër wala nga jël sa téléphone soxna di vérifier yàq na lu bëri donc loolu moom lu jara moytu la donc tey quelques point yooyu noonu lañ noté woon bëggoon ko partage ak yéen képp koo xam ne également am na ci xalaat mën na ko def ci commentaire yi wala tey képp koo xam ni bëgg na ci wax bëgg ko jàllale ci YouTube bi bu la neexee numéro bii ba léegi di 666 56 70 mooy sunu numéro WhatsApp mën nga ñu ko envoyé foofu incha allah dinañ ci jot. alors comme niñ ko faral di waxee rek wax jii ñu fi wax sunu point de vue la kenn ku ne ak sa gis-gis peut-être am na ñoo xam te ne dinañ ci d'accord ak ñun mais am na ñeneen ñoo xam te ne aussi tamit mën nañ ci bañ a d'accord ak ñun. mais lu ci mën di doon rek kenn ku ne xalaat boo ci am nga teg ko ci commentaire yi ñu waxtaan ci ñun ñëpp jële ci njariñ di dellu di tuubaat encore une fois di jéggalu képp koo xam te ni li ñu wax laal na la lu fi jub rek ngeen xam ne ci ndimbalu borom bi la mais lépp lu dëng ci man mii la ndax doomu aadama matul ñu ngi tuubaat di jéggaluwaat encore une fois di leen jox dig daje ci beneen analyse wasalaam. gis xam mooy si kii 7777 gis nga ko. Mhm. kii rek mën naa ci duy cartable bu mu fees xaalis cartable mu fees xaalis mën naa ko ci duy sëñ bi mais turu awaan bi la muy àndal moo bari kayit bii ma ne la sëriñ yu bari ñëw nañ fi pour bëgg secret bii secret bii mënuma leen ko jox bii mu ngi nii moo tax ma boole kook suuf bi yaasin